moo ngi si julli ñu dugg ci kër gi julli mbaaw naan bisimilah mu ne sunna sunnaale fat na alistisqa baaw danam ñaan taw bu sara in ngir mbay mu nar a yàqu loolu kenn dootu julli daañu wàccee kaamil ci jàkka ya ñaan loo sëriñ sàngam ak yëpp daañu ko def waaye sunna si moom sunna si mooy julli duñ ko defat aw soppin wala naan loolu moo xam ne ci dex gi la ñuy tànk di naan bu fekkente ne dex gi dëbbul wala dafa ñiis te taw bay tax ndox mi di dikkaat ñu julli ngir ñaan yàlla taw bi nexrin ñoo ci mu yol koo xëy rii wala leneen loo xam ne rek mooy indi ndox mi ci taw bi lay jóge ñu di ci naan wala ñu di ci bay mu ne borom ke wa in bi safi rek doon da ngaa nekk ci gaal bi itam da ngaa nekk ci gaal rakkataan yi lañu lañu sunnaal ñaari rakka jeex ren ci biral moo salaf na waaye dañ koy biral waxtu reer kon moom rek daanaka bu ñu bu ñu gisatu moom rek wute kii maanaam xam nga bu fi ne bu doon tey ji loo xam ne léegi kii la guddi loolu moom daanaka kii la doon jëfan lay doon mais moom bëccëg la waaye sëral jëfan la rek waaw mu mel ne ayit mu mel ne ayit ak ajjuma waaw kon ci sunna yi ak ñaar yooyu lañu ci seet fam waaw waaw sunna yi ci wàllu bëri bi diggante waaw istisqa waaw. ak ak ayit ayit ak ajjuma waaw sunna yi nga wax waaw sunna yi la sunna yi waaw waaw waaye lu dul loolu moom bu dee naafila bëccëg moom rek sërru lay doon.
sirran guddi guddi guddi biral moom jeexran ba diggante bi biral boo xam ne dana kawe tuuti te doo yëkkati sa baat bu baax wala tajhar bi salaati wala tuxaafid biha wabtaghi bayna daalika sabiila su naa moom yonent it la bi ko tax a defal.
waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci sidna Abubakar muy naafila di biral di wax ndànk mu ne ko lu tax ngay wax ndànk mu ne ko ki may déeyaaleel mu sama borom dégg na ma mu ne ko yëkkati sa baat tuuti daal di fay jógee àgg ci Sidna Omar fekk ko muy naafila ca kaw mu ne ko loo jublu ci li nga am di wax ca kaw mu ne ko damaa bëgg a dàq seytaane nelaw kii yee kii nelaw mu ne ko waaye wàññi sa baat tuuti waaye ñëw wala tajhar bi salaatika wala tuxaafid bihaa wabtaghi bayna daalika sabiila xayrul umuuri mu ngoog nga xam naa ne ci nitu kese mu wax ci kaw teewlu bi bu waxee bu gën a naan ci la koy gën a naan te itam du ñëpp ñooy nelaw mën naa am ñoo xam ne nelaw ñu ñu ngi ci leneen te sa baat dana leen yàqal Omar ibn Abdul Aziz xalif boobu bi bu maandu bi ñuy wax ci xulafa ar-raashidiin yi la bokk boobu gouverneur la mu ñëw dafa neexam baat ay bi di di julli di di ca kaw di tari ca kaw bu neex Saïd ibn Musayyib yebal jaam bi ne ko demal ne koo kiy julli na suufeel baatam mu ne ko ah moom mu ñu jàkka ji kat mu naan di jóg dikk ba taxaw ci buntu jàkk yi ne ko eey sa julli gi bu fekkee ne yàlla nga si jublu yàllaa ngi lay dégg jarul ngay ñaadiku ca kaw bu fekkee ne nit ñi nga si jublu doo ci am dara borom doom bi si dal di gaawantu sëlmal dal di génn fab dàll yi teg
ci jàngal Quran bi moom tamit ñu wàcc ay kaamil ak moom biral gi yàlla gi maanaam dafa am ñoo xam ne dafa am koo xam ne bu dee bu dee biral maanaam ci lay ci lay gën a ci lay gën a mën a teewloo maanaam bu fekkente ne day yàlla nii day dégg jàngum nit day dégg noppam lay mën a day faraale jàngum nit waaye bu jàngee ca kaw yi tamit ci lay gën a mën a teewloo.
ci lay gën a mën a teewloo day daal di jooy te du ko du ko tey
waaw ñooñu bu ñu baree nag kenn ku ne biral su fekkee ne du moom dong moom dafa war a mën a biral kee itam dafa war a mën a biral ngir dégg kee dafa war a mën a dégg nga xam ne day yàlla ngir dégg moom kon da ngir ngir teewlu dootu mën a teewlu dootu mën a teewlu masalam daal bu fekkee ne day biral it mu xaw a suufee baatam ba nga xam daal du yàqal suñ ko léegi ci des daal bu mënee yàlla nag te tey teew ndax am na ñoo xam ne ci yan lañ gën a mën a teewloo ndax julli moom jàng alxuraan sax ak muy muy si julli ak muy si muy julli lépp teewlu ko rek ci am solo tadabbur dafa am teewlu ak seetantal ak dégg-dégg ñetti martaba nag dem na sax ba si juróom-benn mu nekk ci Ihyaa Ulumuddin diine jenn aaya nga def ko tadabbur moo ëpp tuyaaba xatma alquran yëpp nga jàng ko mu àgg ci lu dul tadabbur moo xam da ngay ñaanal nit maanaam ngay jàng alquran di ngir di yéene keneen yool ba wala da ngay def sa waqaf wala da ngay jàng rek ihtisaaban di di sàkk tuyaaba wala di wut xam-xam ci alquran wala di jéem a dégg alquran ndax alquran li nga gën a tadabbur rek maanaa yi gën a fes ci yow li gën a fay ba soo dee julli sa xel nekk ci yàlla ba nga teewlu ko ba teewlu ko ba teewlu ko dootoo mën a teewlu li ngay wax loolu am na nga réew waaye teewlu li ngay wax ak ëpp na
maanaam tey loolu am na kii maanaam mu waroon bëgg laaj ci lu mën a tamal maanaam tey ngay julli teewlu sa borom ak di xalaat sa tey ba mu waaw waaw waaw.
li ngay jàng nga di ko teewlu li ngay jàng di ko teewlu ëpp moo ëpp solo am na benn wax rek bu kii Cheikh Abdul Wahab Chaarani te kooku itam xam naa aarifoo ne tax mu wax mu ne bu fekkee ne yaa ngi jaamu ngay julli wala geneen jaamu koo xam ne danga teewlu ba sa xol yëpp génn ci lu dul yàlla nga nekk ci xadara ba mu ne alxadaratu xadaratu bëxtin boo fa tee doo xamati dara mu ne foofu bañ a xam dara moo gën a mag waaye limaamul Xasaali nettali na ma fàttali ma góor gi tuddati sax dafa ne man de waswaas dana ma dikkal ci julli ñu ne ko waswaas bi nan la demee dafay xalaat mbiri àddina mu ne ñu loolu kay ñu wàññi sama daraja daal ma diggante asamaan ak suuf moo ko gënal waswasa bi daal mooy damay xalaat sama digganteeg yàlla ba sama xel du ne ci li may li may jàng. Xasaali nag ne gis nga nitu yàlla seytaan du naagu ci kenn waaye dana dem bu amee ci yow tuuti rek mu doy ko ki nga xam ne seytaan yi mun la fexe ba dugal adduna wala leneen lu julli ci xolam mu fexe ba soxlaal ko waaye li ko soxlaal yàlla la ba la gënoon a gën amu ko ba mu am la ca teg te mooy ci xalaat yàlla di teewlu màggam gi ni mu la ni mu jàndoo yow sa lépp jë yi ngay jëf yëpp teew nga teewlu ko ba mel ne yaa ngi koy gis an taabudallah ka annaka taraah mu ne li mu màgg na trop wante ki nga xam ne mooy settantal ndax ñi nga xam ne dañuy teewlu dëgg di settantal maanaay alquran yi ci seen julli ak waxtu duñ julli daañu kabar di tari ñëwoon leen secret yu bari te loolu nee ñu ci biir julli bi la bokk day gën a yokk tuyaaba ji ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis kabare waxtu takkusaan ci Madina xelam dem ci àjjana ñu war ko àjjana mu urdat aliyal jannatu fi ardi hadal xaaj mu jëndoog àjjana ba gis ca lu bari xam lépp ba dox benn tànk tàllal loxoom ci bëgg a watt benn meññeet mais su ma ko wattoon waa dëkk bépp daañu ci da dañ leen doy daañu ci
loolu sëñ bi xanaa ku xam dina ci baax maanaam ku xam li ñu xaw a tëkkal la waaw waaw ki nga xam xamu ci dara moom day jàng day day jàng rek waaye ba tey li muy jàng xelam ne ci ak bu xamul woon maanaam bi dañu ne alxuraan boo ko dee wàq lenn rek la bañ li muy tere rek nga di ko def waaye bu fekkee ne yaa ngi wattaniku ngay jàng na nga teewlu rek jox ko teggi nii rek mu wóor ne alxuraan wax yàlla ngay jàng yaa ngi ànd ak bu laab yaa ngi jublu penku yaa ngi ko wet respecté nga ko bu baax loolu rek da nga ci am da nga am tuyaaba ji bëree bëri mooy ñu ko waxee ba ne bi bi fahmin aw bi xayri fahmin Seydina Ahmad ibn Hanbal waaw waaw waaw mu gént ci suñu borom tabaraka wa taala waaw di ko laaj ana lan juróom ñeent fukk ak juróom ñeent Jaamu yàlla.
téeméeru dinaa ko laaj parce que lan mu gën ko war a jaamoo Jaamu ñu ko yàlla.
jàngal xuraan am na ko xam ne aw bi ñu xayri ko xamal bañ a xam nga dégg maanaam mu ne xanaa fekk nga dégg mu ne bi fahmin aw bi xayri fahmin kon na alquran li mu la laaj que kii boobu loolu kii boobu ma traduire ci ci kii bi mu ngi ci waaw ci sirk bi waaw waaw ci kii bi Ihya bi ci fin wu Ihya bi ci alquran li concerne yëpp alquran waaw waaw li concerne yëpp alquran na nga ko respecté mu wóor ne wax yàlla bi nii rek boo ci xamul dara it orma ji nga ko jox na nga njàpp jublu nga penku say cër dal na boole nga sa itte yëpp ci loolu bu ko jàng gëm teewul ne wax suñu borom jeex na ko tabaraka wa taala moo ngoon fan mu ne wa kurira takree takraare fat na ko moom kon nga xam ne kay inta axara ndem yéex naa dañ kon nga xam ne wuti naa ko suuf boobu wa xaraju fi ñu ko teg moo di dañ bi ne maanaam mooy tey bu ñu ko toogee ab diiraat te dañu ko.
waaw ñu continué waat di ko defal moo di ne dañ ñu ne waxtu wu ñu jàppee weer wala jant da ngeen tudd yàlla di xëy na tudd yàlla gi wala da ngeen julli taxul mu dañ waaye gannaaw bu loolu amee rek dañ ne koo sant te loolu jeexagul dañ koy def waxala ju génn nañu jëm ci jullikaay ak du xam yoor yoor dañuy génn musaatar bu mu mooy dox nga xam ne kenn du war di bëgg latin ànd ak yére yoo xam ne day du nekk yére yoo xam ne yu fonk la comme yu kuy sañse ay daf yu mel noonu wa taxashuin ànd ak ragal yàlla kuy génn masaayixu mag ñu mag ak ñu màggat ñi dañ leen indi ndax yàlla yërëm ñu nga wàcce ndox bu mu tëjaal la tam ak màggat bu jigéen màggat loolu itam wasibiyatan ak ay xale ndax xale yi amul bàkkaar laa man waaye du caa génne xale ba nga xam kat laa yaaqilu xel lu wul mel fi ñoom xale bu xamuwul dara moom duñ ko indi nga xam ne du mën a julli te mën na ko nekk di yooxu wala muy coow wala muy dem di ko yàqal ñu julli boo bëri mu daal génne bàyyi mañ de ndax bàyyi ma amul bàkkaar waaw yërmande yàlla la muy xëcc waxaa ay doon ak ay Israël ak te walaay wu na ko deful tere kat jinni yëpp jinni yëpp xam ngeen jinni yëpp duñ ko tere mu génn waaye wan fara da wéetoot na du jaxasoo julli ñi dara julli ñaa ngi def fii ma ngay def fële waaye nag laa bu yow min du caa génn muy wéetoo bis de ndax bu fekkee ne julli ñi dañoo def tey mu def gannaaw ëllëg wala ñoom ñu njëkk a def julli ñi soog a def yàlla mën na def mu dajanteeg ñoom seen seenu ñaan dajanteeg taw jullit ñoom seen ñaan dajante wala taw bu ko defee borom gëm yu kii daal di gën a ñoo ne ci dëgg waaw loolu dama si laaj leen su ma xatabat topp bu julli gi paree mu xutba moom imaam bi kala iid ni ko iid rek xutba iid lay lay comme ni xutba ci iid lu mu wuteeg beneen beneen xutba bu amul xutba iid ajjuma lu ñu wuteeg xutba iid ak xutba ajjuma bi day jiitu bi day mujj.
lii day jiitu bu dee mu ci nekk ñaari ñaari taxawaay.
lu mu wuteeti ci atte bu ci fa bu ci teg lu mu
waaw waaye am na moom kii est-ce que ñu xaw di mel lu junj leen même xot xot ba ngay de xaw ko mel lu ko farataal te julli ngeen di doon sunna wala xaw ma doy waar.
julli maanaam farat la si julli gi maanaam mënu cee ñàkk waaw loolu de gis naa koy xaw na man kay dama dafa jaaxal maanaam mooy julli gi di wax. nan lay nekk sunna jëmmi julli gi. te moom taagan la ci julli gi te almat moom ci bopp bi léegi moom sunna la.
waaw man léegi kay fay koo taagan maanaam farata la.
maanaam bu fekkee ne mënu boo jullee bañ a xool wàcc nga wàcc nga farata bu la nee boo boo julliwul wàcc nga sunna rek maanaam eh, kii bi eh, taabia la waaye bu julli gee koy waral bu julli gi xasee am rek daf koy waral mu mel ne léegi lekk dagan na boo wooree lekk xaraam na lu ko lu ko xaraam la
koor gi.
woor gi
julli naafi la te waaye te xam nga moom la du su julli farata la ci ah xam nga mu ne julli naafi la te du su julli farata la ci julli naa ko waaw noonu la demee maanaam dafa war ci kii bi mënu cee ñàkk bu yàqoo rek kii bi yàqu te boo xasee ba boo xasee ba kàbbar mun na la socc seenante ak yàlla ko contrat boo xam ne sañatoo ca génn kon li koy yàq sañatoo koo def te boo ko bàyyee mu yàqu mun na nekk farata istiqlaalan waaw mun na ko istiqlaalan daf ko def nag ci cadre julli bi boo xasee bay julli rek farat la ci nga foofu mu ne bis u baddala mu ne u baddala soppeet na maanaam changé na dégg nga li attaque bi la de attaque bi la kabar bi mooy takbiru bi nga xam ne yaa ngi koy def ci bi ngay xutba lu mu koy soppee lu mu koy changé bil istighfaar yi ci jéggalu ndax dañu dafa mel na nga gis nga nit ñi bu ñu defee ay bàkkaar yàlla daf leen di nattu ñii jullit ñii dul jullit daf leen di mbugal nattoog mbugal xam ngeen li ñu wuute léegi nag bu fekkante nit ki def na bàkkaar dafa war a jéggalu jéggalu ñaan ñu may ñu soo koy may maanaam daal dindi mbugal ni mu nekkee woon te bàkkaar bu waral ko dégg nga wa baalaxa jotalat na fi duwaay ci ñaan mun ci rek tudd yi leen tiis yi leen metti yëpp ñaanal nitam ñëpp ñaanal dëkk bi réew mi jullit ñi dégg nga li xew-xew yi xew yi am ñaan mu dañ yi metti yi baax yi mu sax mel noonu daal bu fu mu koy defee aaxira saaneti ca mujj xutba ñaareel la mu taxaw xutba ñaareel bu ca paree mustaqbilan toujours mu mu di ay jublu xibla su ma xaw wala topp mu wëlbati mu soppi ridaahoo lambaayam ba yaminahoo ndeyjoor ba yasaaroo nekk càmmoñ ba te mu bañ ko def aliha saafilaha alors su fekkee ne léegi dina julli sa defoon nii buy def taxawin te def nii da féete woon kaw féete suuf maanaam waaye toujours li féete woon kaw nii mooy féete kaw dañuy bañ lii féete suuf léegi lii féete suuf ndax fa jaal naa aliya saabila ajo yi nga xam ne mbugal la ko taxaw na jóg moom la ñuy li ko gaaf gi
ñun ñuy soppi bi soppi ridaal yooyu ndax dafa ëmbaale wane bu julli ñi wane ne soppi ku nañ ko ci li ñu ne woon dañ ko mujj wala la arfaan la ci dañuy arfaan suñu borom soppi mbir mi ñu nekk ba tax lim bi ne toroxlu di ñaan ñu ci jikko kaana sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu al faal al xasan moo tax ñu loolu moo tax ñu bañ a def gaafu li newoon ci suuf ñu wëlbati ko ca kaw ndax suuf suñu daan wëlbati loolu daal waaye amul dara ci déedéet loolu rek loolu rek arfaan la arfaan arfaan arfaan xam nga kii bi biir bi nekk bitti bitti bi nekk biir mu mel ne changé nañu ne xaal bi waaye nag jëmmi kii bi changé bu ko ndax kon li féete woon kaw féete suñu féete kon loola dafa am lu ñu cay watandiku loola itam moo waral nag ñuy wëlbati ci biir biir bi biti moom moom benn la waaw benn lañu mu ngi tax mbir bi dafa am biir am bitti biir bu fekkente ne baabun baatinu fii rahmatu wa zaahirun min qibalihi al-azaabu azaabu boobu nga xam ne moo nekk ci kaw ñu dindi ko bu féete bi léegi rahmatu ba dana ngeen ngeen kon ñu ngi diir rek ma ne ñu ngi diir kon ñu ngi dindi rek waaw waaw arfaan rek ñu ngi rafet ñu jot arfaan
am na
dégg nga waaw mu ngoog mu ne bilaa tan ci sin ci ñu njëkk kaw sëñ ba tey danga naan xalil bàyyi lu ndaw di laaj da ngay misaal dara fekk mu ngi ci kanam bu def indi ne ko bu ko daanaka noonu ar rijaal góor ñi fàqat rek oo daf leen gën mu ñëwee toor ñu ngi bëti ay dégg ngeen de wanu di ba soppee fat na xutbatu bil ardi bañ a taxaw ci koy strat bi wa siyaamu salaasati ayaamin woor itam sopp nañu so woor ñetti fan qablahu ndax dañu ne aji woor dañu jéggal bàkkaaram te day xëcc yërmande yàlla te dañu nangu ñaanam aji woor saa
parce que bii xanaa bëri na ci defatuñ ko da xanaa sa xanaa ci àdduna ndax am na sax réew yu ñu koy defee ci àdduna déggatuma ko fenn gisatuma ko fenn waaye daanaka moom ah dafa wàll ñëw na istisqa de gis naa ñu ko fi doon def nag waaye sa bis ma war na ko doon tàmm
ah dañoo noppaloo téere bi gannaaw dañuy def sunna rek kay boo xam ne def sunna ko rek ñu nekk daanaka noonu ar-rijaalu faqat. xaw dem bi te wane li ba soxla xam ne xam nga xottam bi ab bi wa siyaamu salaasati ayaamin ak woor ñetti bis qablahu ca la jiitu julli ga wala bisu julli ga. wa sadaqatan ak ñuy sarxe itam ay taay ko julli waaye wala ya'muru du digal moom imaam bi imaam si ñoom wala ya'muru du digal al imaam wal imaam bi imaam si ñoom ñaar te mooy woor ak sarxe. ñun ñee koy def rek waaye day mel ne kon farata la ba ilimaan ji dee def leen naa nga moom bal dana digle rek bi tawbatin ci tuub. nga xam ne yàlla digle na ko ba noppi ci jamono bu ne.
warat di tabiatin ak delloo toppat loo ameeloon nit loo ko tooñoon nga balu ko loo ko ameeloon nga jox ko ba bor boo ko ameeloon bu ayee nga fekk ko bu jaasa dagat na tanafuru naafila qablaha ci la jikko ci la boo baadaha ak ci gannaaw waxtaara tànn ku tànn lax mi imaamu lax mi tànn iqaamata xayril muxtaaji taxawalu ku du mu aji aajo woo dégg nga ki nga xam ne aajo woowul sax ndox mi sopp nañu ba tey gannaaw dañuy ñaan ndox waaye sopp nañu ba tey mu du sunna waaye sopp nañu moom it mu daal di jóg julli def yooyu bi maxal yi ci bérébam ba li muxtaajin muy dimbali ñi nga xam ne ñoo ko aajo woo mel na ko tey dëkk boo xam ne ñoom soxla wuñu ndox ñu réew mi daal doy waar ñu war a kii ci bis bi ñu xam ko lu ñu daal di jot ñoom it def baaw naan ngir jëriñ ñee ngir bu taw bu wàccee jëriñ seen i mbokk julli xaala wax na ku wax engrais nee na ma fii si nekk na si na xarum de ndax buñ aajo woowul bu ñu bu ñu baalee naan mu taw war a xaa un ñu fil na naa ma xalaa un waxoon na si loolu waaw li ma ko gisee war a xaa un yudil ima yudil anaama raxaa boobu yonent bi salaa sallam ñaanee muy taw di taw di taw di taw di taw ba day taw bi bëgg a lor nit ñi bañ jël si waat wax ko wax ñaan na ko ñaanee benn mu ne allahuma isqi bilaadaka warham ibaadaka ñu di ko wax naan pour taw bi mu bañ a lor mu nekk mu dellu ne allahuma isqi bilaadaka warham ibaadaka xam nga warham ibaadaka ji moom yu bale nit rek allahuma isqi bilaadaka warham ibaadaka am ngeen ma taw naan waaw laaj bi laa doon bëgg a laaj. dama gis naa ne booy faafal bi daal. loolu ñoom ñu wax ñu bu jógee bitim réew daal.
waaw xanaa dañ doon ci kees ñaare kas ko. nag ñu ne béykat yi boo kees gi daal lañ ko noonu. pour affaire sangaay bi noonu noonu ko.
ndax ñoom suñu ñu ba lañ koy dugal ci kër gi
kees yàlla def rek may amuñu daal daañu woote ñooñu ñu ñu defar ko am na yoo xam ne gars yi du ci jël dem. docteur yeeg ñooy toog rek affaire bi. ñu amee tur bi mu daan mën a dem sonk ko dugal ko ci biir kër.
loo xam ne bu fekkente ne sax ñu ko woon mu ñu indi ko ñu xam ko te mu am ab diir boo xam ne nga cangaay ni ak julli bi ñoo bokk ak am na ñaari wax waaw waaye ku ne bii farata rek ne bii farata ku ne walaw bi sam sama xam nga la góor gi wax man dama xamul sax walaw bi sam sama ñu ko xanaa nit ñi ni ñu war maal trop sam sama xanaa moo tax mu wax loolu